muy lu jëm ci wàllu maintenance waajtaayu màggal gi dundal weeru koor dundal guddi gàmmo saytu almeeru bàqiya yi si taxawu personnel bi ak yeneen ngir tàmbalee si weeru safar gi jàpp ci waajtaayu màggal Touba mën ngeen a yónnee seen addiya ci site internet bi mën ngeen ci jëfandikoo seen crédit card paypal wala seen checking account lépp ngir mu jàppandi si yéen ndax du lenn kenn léppi ñëpp la te képp ku ci feeñ dootoo nëbb ba faw numéro fondation bi 813 328 20 50